saa yi ñuy wax fecckat lan la ñuy njëkk a wax waa ñun joxuñu gëdd xam nga lu ñuy njëkk a wax mais est-ce que yéen booloo ngeen. mais booloo bee ngi. léegi nag à partir d'aujourd'hui moo waral lii. à partir d'aujourd'hui dañoo bokk ci réew mi. ñun fecckat yi. waa dégg naa sànq ci biir wax Papa Niang la cinquante millions yooyu ñu ko jëloon teg ci bërëb di ci dimbali ay néew di doole ñu feebar mais moo gën ñun dara jotuñu. fi table di ñi fi tok ñep ay responsable lañ ay kilifa ñun d'abord ñoo gëna a ñoo gën a ñoo ñoo njëkk nangu suñu liggéey fonk suñu liggéey respecte suñu liggéey respecte suñu bopp on n'est pas là pour l'argent franchement par dessus désolé ñun attaqué ñu nguur attaqué wu ñu état li état de joxe sax ñun on n'est même pas informé woowuñu you Thiou Oumou Sow woowuñu Ndeye Guèye woowuñu Papa On ne Papa Moussa woowuñu kenn dañuy dégg rek bu fekkoon nañu boole Papa Moussa Sonko yow en tant que danseur Youssou Ndour xamee nañ ko dañ koy gis mu leen di bëggal dañ koy gis ci wali mu leen di bëggal association kon ñun dañoo sonn ci social et je pèse bien ku ci nekk sa kër dañ lay fëgg nee na dimbali ma awma dépense damaa feebar ordonnance da nga koy faj te ci pecc mi nga ko amee te kenn dimbaliwu la yaa ñëfal sa bopp kon ñun tey dañ fay ñëw tey pour waxtaan ñun suñu biir waxtaan ak yéen xamaleen ñun ñoo association boo xam ne dañoo jug dès maintenant pour liggéey ndax c'est c'était un rêve ça c'est un rêve rêve la woon ma tok, Ndegay tok, Ahmed tok, Papa Ndiaye tok, Oumou tok, toog Pa Moussa tok. c'est un rêve te ku ci tu ci ñun ni macha allah am nga sa doole biir. xeexuñu xuloowuñu gereevuñu ñaanuñu dañu ñëw pour waxtaan ci lo xamante ni yemalewuñ ko ci ñun mooy kat, tëgg na fi ba sonn woykat woy fi ba kat fecc fi ba sonu musicien musicien fi ba sonu beugal aduna bi yëpp xey tëdd feebar da ngay deg heure buñu xey ñu naan diwa febar nañ ko ketal nañ ko cotiser nañ ko ñaanal ci ko xamanteni ba nga juddo nga jël sa aduna ak sa vie jox ko sa dekk di len beugal di len yé di len soulager di wàññi stress yi jëndee yow sa avenir sa dekk kon koku président bi da ko wara taxaw kon kooku ministre am da ko war a taxaw di ñaan son excellence ki nga xamante ni yàlla moo dogal ay dogalam ndax njiit sàkkul boppam yàlla mooy sàkk njiit muy président de la république sunu papa Macky Sall mu baax mi mu yaru mi mu teey mi mi nga xamante ni mooy borom jàmm ji ndax nag gaal moom boo ci nekkee bul na yàlla naa mucc ci gaal gi danga naan yàlla na gaal gi mucc te moom it moo ko jiite géré na ko ni ñu ko bëggee di ko ñaan mu recevoir ñu woo ñu jàkkaarloog ñun waaye di ñaan suñu ministre de la culture ne ko ñun kalaasuñu xeexunu xuloowuñu yéenay suñuy kilifa doon suñuy mag doon suñuy papa li ñu woote nag mooy dimbali suñu bopp dimbali suñu jabar dimbali suñu yaay dimbali suñuy doom ku feebar faju mooy maanaam ñi ngi yeewu di ko gis moo tax ñu def suñu association bi mooy ça veut dire li ñu bëgg ñun mooy li ñu jox mooy cinquante million ñun bëgguñu ci jox ku ne dix mille ku ne deux mille cinq cent ñun dañ ko bëgg jël ñun ibbi suñu compte feccikat yëpp dugal ko fa nga xamante ni ndimbal da cay fekk loxol borom. yàlla yàlla bay sa tool. parce que am na station li ma lay wax maa ngi jàkkaarloog sa kamera message la boo xamante ni dañ koy lancer dama ne bu nu joxee xaalis bi ku ne am 1000 francs boo xëyee doo yoraat sa 1000 francs. mais que même ma tuuti buur dañuy waxtaan dama leen di dimbali dimbali sama bopp. wala mooy ça veut dire lu ñu jox buñ ko séddee woon ku ne doo am 2500. mais je préfère ñu jël ko dugal ko ci benn association boo xamante ni ku feebar faju président ñëw ak ndimbalam ñuy liggéey ñun tamit def ndimbal te yemuñu ko ci ñun bopp suñu bopp kese de dañoo bëgg keneen ñun kuñ mën a dimbali ci social ñu def ko te yàlla tax. waaw àdduna loo gis rek du ñëpp ñooy bokk gis-gis du ñëpp ñooy àndandoo waaye bii moom ñun ñoo bokk ànd te kenn ku jige fële. wala ku ku jóge fële euh, euh, ku ñëw bëgg a bokk bokk ak ñun xalaat ndax ñun dafa am nu ñu àndee xam nu ñu àndee ngor jom fulla faydo benn nekk benn lii lañ àndee